conseil sénégalais des chargeurs COSEC moo leen di may seen revue de presse dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéen kaay ñu xëyanto woppi coronavirus bu lawee ci réewum ba di fi jàppa jonge bu mu bett kenn yéen kaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa docteur Babacar Niang mi nga xam ne mooy directeur bu suma assistance def na ay révélation nee na bëri na ñoo xam ne bitim réew la ñuy jóge te bu ñu ñëw ay faux test la ñuy àndaale test yu baaxul am na si ñoo xam ne dañuy fay ngir jàll aéroport nee ak yi nga xam ne tëjoon nañ ko Air France ma ngi doon dugg Sénégal nu mu ko neexee moom docteur Babacar Niang wax na ci woppi coronavirus ak ni mu mel ci déndu Afrique yéen a kaay gi di source a ñu xëy fekk fa Aly Ngouille Ndiaye daan nay wax ne Sénégal yi bu ñu bàyyeeku ci lu jëm ci mesure barrière yi nga xam ne waa kër docteur daan nañu koy santaane yéen a kaay gi di Vox Populi ñu fekk fa Abdoul Mbaw mi nga xam ne moom lañ fal bërki dee moo Ndiaye premier vice président assemblée nationale daan nay wax ne jamono ji wax ji moo bëri rek waaye Macky Sall ma ngi liggéey ngir lu jëmale réew kanam bi ñu ko laajee ci mbiri Ousmane Sonko la mu xamle nee na Sénégal yi dofuñu faan laaxalu leen ba ñuy jël ab kàccikat di ko teg ci bopp réew mi moom Abdoul Mbaw nee na Ousmane Sonko dafa am jafe-jafe ak wax dëgg yéenekaay gi de Libération xëy di ñu xamal lan ñu Ousmane Sonko bind na ñaari question gouvernement bu senegal ngir ñu andi ci ay tonto ndax nag Assemblée nationale règlement intérieur bi article 192 moo may ab député bu nekk mu bind ay question laaj gouvernement bu Sénégal ngir mu andil ko ay leeral ci loo xamante rafetlu njort ne dafa lëndam Ousmane Sonko daal na koy def li nga xam ne moom la bëgg gouvernement bu Sénégal indi ci ay leeral mooy terme sud ak militaire yi nga xam ne jëlee nañ ko fa Ousmane Sonko tamit bëgg nañu andil ko ay leeral ci immeuble yi nga xam ne wax nañ ne état bu Sénégal daf ko jaay jox ko ay privé maanaam indi sa ak luubal yéen a kaay gii di laas nee na Ousmane Sonko Macky Sall ak Abdou Karim Fofana la tuumal waaye nag règlement intérieur bi jamono ji li mu wax mooy ñi nga xam ne Ousmane Sonko sàkk nañu indi ay leeral fii ak benn weer danañu ñëw ca pincum ndaw réew ma yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na sunu xëyee ne leen nag Cellou Dalein Diallo gañe na élection yi ci Guinée Conakry bu mu bett kenn ndax jamono ji nag li nga xam ne mooy xeeñ baax na lool ci Cellou Dalein Diallo ndax na li nga xam ne mooy résultat yi njëkk a génn bàcc na bàcc yu tàng ki nga xam ne mooy Alpha Condé yéen kaay gi di li quotidien nee na jamono ji nag dañoo jëm ci victoire Cellou Dalein Diallo Alpha Condé démb bi mu voté ba pare daan nay woo askan wi yëpp ñu ànd akuk dal Dakar Times dikk na ci Aboubacar Sadikh Bèye mi nga xam ne moom lañ dénk port autonome de Dakar ak ni mu teggee jafe-jafe yi nga xam ne moo am sa poora di Quotidien dikk na ci wàllum tourisme ci Sénégal ak jafe-jafe yi nga xam ne moom lay dund ak ñàkk promotion gi nga xam ne moom la amee coronavirus bi nag tax na mbirum tourisme gën a dee ci réewum Sénégal yéen kaay gii di las xëy na ci lu toll si ñaari téeméer ak ñeen fukk ak juróomi njaboot yi nga xam ne bëgg nañu leen a génne sa Kër Massar ci gox bii di Daaru Salaam 2 ndax Abdoulaye Dia mi moom seeni ko nee na moo moom suuf soosu te fas nañ leen faa génne loolee nag tax na askan wa fa yeewoo mer nañu ba maara day nañu amal am mars waa yaana mar ak waa frapp ñoom nag dañuy fas yéene ñëw bokk sa xeex ba yéen a kaay gi délibération xëy ci mbir mu doy waar nee na Saliou Ndoye mi nga xam ne mooy chef de service bureau de poste Dakar Étoile dañu ko tuumaal na dafa def détournement boo xam ne ay millions yu baree bari la bi nga xam ne nag waa bureau de post ñoom porté nañu plainte waa dikk daal di woolu ki nga xam ne mooy Saliou Ndoye bi ñu ko enquêté daal nay wax ne xaalis bi moom moo ko luubal maanaam moo ko damu si poosam waaye nag bëri na ca loo xam ne ab sëriñam la ko jox te sëriñam boobee moo kooku lu mu yàgg-yàgg doo dem kaso sëriñ boobe nag teg nañu ko loxo sëriñ ba jot na saa jënd lu toll si ñaari oto yéene kaay gi nee na ñoom ñaan ñëpp teg nañu leen loxo réew mi quotidien nee na am na benn waay boo xam ne dañu ko bëggoon a suul ni ki démb ca armeelu Touba waa ji Pikine la jógee waaye nag waa daayira muqaddamatul xidma bi ñu defee enquête xam ne boroom ñaari tur yi la dañu ko gàntala ay am ne fii du ngeen ko fi denc yéene kaay gi di sunu làmb xëy séq waxtaan wu yaatu ak sëriñ Mbàkke Njaay mi nga xam ne ay jamono nekkoon na fi ministre wax na ci CNG buñ ko ko joxoon ana nan la koy doxale